maanaam uh, ñaan gi ku ñuy tuddee xawsullahi maanaam xettalkatu yàlla bi eh, eh, eh, léegi nag madu xawsullahi mooy xasbiyallahu uh, ñu bare nag dañoo miin xasbunallahu alquran moo tudd xasbunallahu mais kii dafa doon ñaan boroomam subhanahu wa mag ñi dañuy wax ni képp ku ko def soixante-dix fois def ñaan gi sept fois at mat danga ko fekkewaat déwén bu neexee yàlla looloo tax mag ñi daan ko fonk ñun ñii dañ daan toog ci suñu ëtt ya ñu ñu koy jàngal comme guddi tey wala guddi suba walla même même altine tashua mooy tey mooy juróom-ñeenteel ashura mooy fukk su ko defee nga ne xasbi allahu wa ni'mal wakiilu ni'mal mawla wa ni'man nasiru soixante-dix fois xasbiyallahu wa ni'mal wakiilu ni'mal mawla wa ni'man nasiru soo ko waxee soixante-dix fois daal di ñëw daal di wax ñaan gi subhaanallahi mil al miizaani mil al miizaani wa muntahal ilm wa mablaga rida maanaam kii nag wa muntaxal ilmu wa mablagu rida wa zinatal arshi laa manjaa wala maljaa min allahi illa ilayhi subhaanallahi adada shafci walwatri wa adada kalimaati llahi taamaati kulliha asaluka salaamata bi rahmatika ya arhama arrahimina wa huwa xasbiya wa nicmal wakiilu nicmal mawla wa nicmal nasiru wala xawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim kii ngay wax sept fois maanaam nag subhaanallahi mooy maa ngi tudd yàlla ndax baatu subhaanallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na baatu subhaanallahi tuyaa booba na mu toll kenn xamul na mu toll ci réyaay nga ne nag subhaanallahi maa ngi tudd yàlla mil al mizaan loo xam ne dana fees balance yi di yàlla peese jëfi jaam ñi wa muntahal ilm maa ngi tudd yàlla tudd goo xam ne fa la xam-xam yem xam-xam kenn xamul fu mu yem yàlla rekk xam fa mu yem nee nag yàlla ma xam fa mu yem maa ngi ñaan yàlla subhaanallahi googu li peeg xam-xam yépp nii ma ko waxee nu mu toll yàlla na ma yàlla may tuyaabu bu toll noonu wa mablagu rida ak eh, fa nga xam ni fa la ngërëm yem ngërmande fa mu yem nga xam ni mooy plafond ba maa ngi yàlla ñaan yàlla mu gërëm ma ngërëm lu toll noonu mais man maa ngi gërëm yàlla ngërëm yàlla bu toll noonu maa ngi koy gëmit gërëmitam itam wa zinatal arshi zinatal arshi yàlla moo xam nu arsh toll moo xam nu mu taaroo la fa nekk yëpp yëpp maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma tuyaabu bu toll noonu maa ngi koy tudd itam tuyaabu bu toll noonu nga ni laa man jaa amul kenn ku mëna mucc man jaa pour mucc ko ay amul wala ja amul benn wéeruwaay minallahi ci yàlla illa ilayhi lu dul ci moom yàlla foo mënti mucc ak foo mënti wéeru kenn moo mat muccukaay moo mat wéerukaay mooy yàlla subhaanallahi nga ni maa ngi tudd yàlla adada shafi lépp loo xam ni pair la wal watri ak lépp loo xam ni impair la kenn xamul maanaam lu toolul ak lu tool kenn xamul nu mu toll nga ne nag maa ngi tudd yàlla tudd gu toll noonu adada shafi shafi mooy lu lu toolul lu mat loo xam ni pair la wal watri loo xam ni impair la wa adada kalimaati na maanaam kii nag moom da ko ci yokk mais wa adadu kalimaatillahi taamaati kulliha maa ngi sant yàlla tuuru yàlla yi ni mu toll ak baatu yàlla yi ni mu toll maa ngi koy sant te alxuraan nee na su ngeen jëloon géej gi mu nekk encre ngeen jël garab yu mu nekk feuille maanaam xobu garab yu mu nekk ay feuille kayit ngeen jël bant yëpp mu nekk ay xalima ngeen di bind turu yàlla da ngeen ko bind ba mu jeex takk takk takk ba xalima yi jeex garab yi jeex lépp jeex géej yi jeex te te yàlla yi du jeex kon kenn xamul nu mu toll nga ne nag man sama lii may sant noonu laa sante yàlla noonu kon kenn xamul nu mu toll yàlla rek xam nu mu toll su ko defee kon nga ne nag yàlla maa ngi lay ñaan wa adada kalimaati laahi kulliha taamaati a taamaati yoo xam ne mat na sëkk kullihaa lépp yàlla rekk xam ay turam nu mu toll nga ne nag man yàlla na sa tur ya toll yow yaa ko xam sant naa la sant gu toll noonu nag ma bindal tuyaabu bu toll noonu nga ne asaluka maa ngi lay ñaan yow yàlla asalaamata mucc mucc ci bépp musiba ci àddina ak musiba ëllëg alaaxira ci lan bi rahmatika maa ngi la koy ñaane ci sa yërmande ji yaa arhamar rahimin yow mi nga xam ni yow yaay buur bi soxla ku ko yërëm ak ñi soxla ñu leen yërëm ñëw ci yow nga yërëm leen ngërmande àddina ak ngërmande àllaaxira wa huwa moom kooku xasbiya doy na ma moom kooku may waxal xasbiya doy na ma te mooy yàlla wa a baax na lool alwakiilu ka ñu wéeru koo weeru rek wéeru ci yàlla moo ko gën kon nicmal mawla wa nicmal nasiru kon yàlla na yàlla nicma baax na almawla sang ba wa a baax na an nasiru ki nga xam ne mooy dimbali ñépp nga ni laa xawla amul kenn ku mën a fexe fexe ma jub wala quwata amul kenn ku mën a am kàttan ci lor illaa billaahi lu dul mu bàyyi ko ci yàlla al aliyi yàlla mi tiim ñépp al azimi yàlla mi aji màgg nga wax ko juróom-ñaari yoon wax xasb xasbiyan xasbuna xasbi allah wa ni'mal wakilu soo ko defee mag ñi nee nañu su neexee yàlla bul dogu nag su neexee yàlla insha allahu fii ba déwén doo fi dee mag ñee ko wax te dañ ko yàgg seetlu ak lu mën a xew loolu mag ñi wax ku ko def yàlla na ko gis yàlla may ñu ñu dund ba fekkiwaat déwén ba toogaat di ko ñaan kenn bañ a manqué feebar bii nga xam ne mooy corona bi yàlla na ko yàlla génnee ci àddina bi yëpp yëpp képp ku mu dalagul yàlla na ci mucc yàlla bu mu la dal ñi mu dal ñëpp yàlla nañu wér ba kenn ku ci nekk delluwaat ak sa sago àddina bi continuer ci ak ay activité am yàlla mën na ko ñu ñaan ko ko yàlla nañ ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi mën nañ laaj euh, maanaam euh, bisu suba mën hmm. nañ ko def suba mën nañ ko def tey mën nañ ko def tey mën ko def suba mën nañ def mën nañ ko def ci guddi tey maanaam taasuwaa mooy bisub juróom-ñeent bi hmm. ashura mooy bisu fukkeel bi hmm. su fekkente ni taasuwaa muy tey ak suba mën nga ko def tey mën nga ko def suba mm-hmm. bu fekkente ni ashura bi yow da nga ko yéex a yëg mm-hmm. muy euh, muy muy mu waaw nga dabaatal ko comme altine mm-hmm. su la altine jotee maanaam ba ba yoor yoor bi maanaam lu commencé ba midi mën nga ko cee def kon yàlla na yàlla nangu te jaamu yàlla moom dañ ko wutal app rek mais jaamu yàlla amul app amul heure heure boo ko mënee ak boo ko defee rek yàlla na la ko yàlla may nangul ñu te itam yàlla na yàlla def ñu nekk jullit piir piir may ñaan yàlla mbooleem ñi nga xam ne njabootu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu lu ñu déggoo di déggoo di ku déggoo digu di wax wax bu yiw di wax wax bu baax moo gën di saagante di xastante kooku war na war njabootu yonent bi war na jomb lu mel noonu ci mbaaxu yàlla même ñi ñu bokkulul diine sax war nañ sax jox leen orma waxuma la ak nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk diine ngir yàlla ak ku tedd ki ñu bokk muy sallallahu alayhi wa sallam ñuy suturaan suturaalante di ormaalante di éeneente jàmm koo uuteelu xalaat itam nga maandu ca mbiram te bañ koo wax ju ñaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala